te wonati bal leen maax bal naa leen ax ci weeru sell bi ñu nekk muy weeru koor di weeru ngëneel ci ñun di weeru promotion kon suñu boroom yàlla nañu ci defal ay ngëneel yu kawe suñu njot dëgg nañ ci ba am ci quinze jours yàlla nañu àggale ci yeneen quinze jours yi génn ci jàmm di ko ñaanal bépp mbooleem jullit de retour les infos tey damay ñëw ci ñaari info kilifa kër gi Ngaaka Blindé kilifa kër gi ginnaaw bi nga xamante ni jox nañ ko liberté provisoire kenn dégg ko woon mais nag cant yi nga xamante ni Cheikh Bara Ndiaye def koy def chaque année invité na ko fa gars yi laaj ko depuis loolu kilifa dégguñu la mu ñu leen dégg naa gars yi di wax dañ maa teree ma wax mais kenn tereewu mu ma wax maa amagul envie wax mais soo may envie wax dinaa wax ta mu may ñëwaat la ma gënoon a man day gën a dolliku ni xam naa ni kenn mënuma teree wax dama amagul envie rek pour wax mu nekk kàddu yoo xamante ni kilifa kër gi bu membre euh, group kër gi ak euh, membre mouvement Y'en a loolu la wax kon nag gars yi kilifa nañ ko xaar nee bu bés bu waree wax rek su ñëwee dina wax te lam doon wax day gën a kon ñu ngi koy xaar deuxième info ñu ñëw ci Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé nag ñëwaat na jox ñu benn video mu ànd ceeg Mouhamed Alla Diop Mouhamed Alla Diop nag kenn de du ko présenté mu nekk doom ci Alla Diop mi nga xamante ni day tagg yeneen bi bokk ci ndaanaan yi nga xamante ni ñiy tagg yeneen bi la Mouhamed Alla Diop nag jamono ji gars yëpp nga koy bàyyi xel ndax dafa mën lu muy def mu ñëw ànd ak King Baba Ngaaka Blindé le titre c'est Nabi vidéo bi disponible na gars yi dem leen ci compte YouTube bu Ngaaka Blindé ngeen seetaan ko da ngeen gis image yu nice vidéo top boo xoolee commentaire yi lépp nice fan sa Ngaaka yi bon di ko jooy le fait que mu ànd ak Mouhamed Alla ñu ñëw tegu ci benn instrumental boo xam ne ci beneen univers la ñu def ci di ci tagg yeneen bi mais nag euh, ci sama xalaat man nag maa gis loolu et je pense que tamit peut-être du ñaax ñoo xamante ni gis na ko boo xoolee son bi ñu si ëpp li may wax nii gisuñu ko si mais man li may dérange si vidéo bi juste man la concerné mais nag vidéo bu naay sa juste damay wax rek xam nga Sénégal moom soo waxee sa xalaat ñu indil la leneen quoi mais Tent Gaaga bi est-ce que waru woon a mën a indi karawaram bu ñuul bi nga xamante ni tey jii nii en tant que ngaaka karaw gu ñuul bi nga xam ne moo neex si moom xam nga li mu def ni teint la mais vidéo bi dafa laajoon ngaaka ñëw indi karaw am muy karaw gu ñuul bi bu vidéo bi jàllee mu indiwaat tentam parce que kuy def vidéo da nga koy préparer da koy préparer da dem jënd ay yére fi nga war a defee vidéo yi léegi mais tamit pour man loolu dafa bokkoon ci mu dem indi beneen style style normal bi sans mu def ay tent parce que loolu tamit bokk na ci li wormaal vidéo bi ndax euh, defe naa ni tey jii nii gën ngi ñi def képp koo xamante rek yaa ngi koy tàgg war ngaa war a am noo donte côté euh, nu mu soloo lépp nice mais man teint bi je vois que mënoon na koo dindi après mu indiwaat ko ci sama xalaat ndax am na ñoo xamante ni dañ koy bàyyi xel di ko seetaan am na ñoo xam ne teint bi neex na leen am na ñoo xamante ni buñ gisee ni ah teint bi de bu dindi woon wormaal jëmm ji muy euh, woy dina ci baax mais man loolu sama gis-gis la euh, lu ma xalaat la ni mënoon na si ñàkk mais à part ça vidéo bi nice na trop les paroles surtout moi côté bind en plus ñi jëlaat son suñu Ndour wiiri wiiri euh, tegaat ci leneen loolu tamit inspiration la boo xamante ni si ñoom ñaar xam naa ni loolu tamit idée Mouhamed Alla Diop am na si idée Ngaaka tamit am na si ndax boo xoolee Mouhamed Alla Diop bëri na ci loo xamante ni day jëlaat ay air ñoo xam ni ci ñiy woy lañ mu ñëwaat di ci tagg yeneen bi mais en tout cas c'est dope nice na trop mais li mu si wax moom sama xalaat la man su ma sañoon tent bi Ngaaka mënoon na ko faxas indi karaw normalam bi pour jëm mi ji nga xam ne daf koy màggal muy yeneen bi à part ça je répète nice yéen tamit seen réaction si commentaire yi ngeen wax nu ngeen gisee vidéo bi après ñi nga xam ni ñi ngi doog a dugg ci sama chaîne DOS ngeen abonné te bu ngeen abonné pare bu leen fàtte ba seen cloche notification bu vidéo buñ mën dugal rek ngeen mën ko am